ñuy nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 euh, heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dañuy daal di wëyal waxtaan bi jëm ci coow bi nga xamante ni Covid 19 wala coronavirus indi na ko ci àdduna bi indi ko tamit file ci Sénégal gis ngeen ni depuis lors mooy occupé actualité tey euh, coow li bari na nag am yu sujet yu baree bari yoo xamante ni dafa laal euh, li nga xamante ni moom mooy euh, Covid 19 boobule gis ngeen ni sax bi Covid 19 bi amee njiitu réew mi yëkkati na benn aide alimentaire boo xamante ni daf ko bëgg a jox. une couche euh, sociale de la société pour jàppale leen ko gis ngeen nag aide boobule euh, coow li nga xamante ni jur na ko euh, ñañu ñi nga xamante ni jox nañ leen mbir moomule pour rek ñu daal di koy gérer fa ñu jëndee ceeb bi ak ñu koy transporter coow li bari na dinañ ko waxtaanee ak souffrance bi nga xamante ni actuellement sénégalais yi ñu ngi koy jànkonteel ndax coronavirus bi léegi gis ngeen couvre-feu bi am na wante tey jii ñu dalal Abdou Karim géey bu mouvement nitu dëgg Abdou Karim Gueye na suñu ko dalalee daañu waxtaanee moom ci boppam jafe-jafe yi nga xamante ni kuréel gi mu bokk am na ko ah, nitu dëgg ba daal di fi scissionné euh, nekk ñaari nitu dëgg euh, Abdou Karim Gueye feebaroon fi dem fi Allemagne faju ñibbisiwaat loolu lépp ñu ko waxtaanee tey ji ak kile euh, di Abdou Karim géey bokk ci mouvement nitu dëgg ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw maa ngi maa ngi lay fay mm-hmm. sama sister gëj nañu déggante maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dëgg di nuyu sunu mbokk auditeurs yi nga xam ñu ngi bàyyi xel sunu rajo bi 97 point 5 réew mi. Euh, di ziar ñëpp ñi nga xam ñu ngi bàyyi xel émission bi rek di nuyoo di ñaan yàlla rek bañ fox lu ñuy xebe voilà Abdou Karim Gueye euh, bala ñuy commencer directement dañuy dem ci tas gi nga xamante ni euh, mouvement nitu dëgg daf ko tas parce que instant bi dafa mel ni ñaari mouvement nitu dëgg moo am te dafa mel ni mbir mi ci yow la loolu lan nga ñu ci mën a baax ñaari nitu dëgg yi. non man nag gisuma ñaari nitu dëgg nag. wax hmm. dëgg yàlla benn nitu dëgg laa gis ah. lu tax. parce que moo fi ne mais Abdou Karim Gueye coow am fi mhm. euh, sa ex femme ainsi de suite bugguma sax dugg si ay vie privée jàmbur mhm. inci de suite occupé réseaux sociaux occupé actualité bi mu am ojo euh, yu mu def ainsi de suite ñu mhm. tas ko ba am ñu bokk ci mouvement nitu dëgg ñoom daal di ñëw génne ab communiqué ne ñoom génne nañ la euh, ci mouvement nitu dëgg après yow quelque temps après sax am na beneen nitu dëgg boo créé woon ñëw mu nekk ñaari nitu dëgg yu parallèle donc soo waxee ni amul beneen nitu dëgg bu fi amul ñaari waxi nitu dëgg affaire bi dina ma jaaxal moo nekk si man nekk si ñun ñi nga xam ñoo booloon ñëpp di ànd am na ci ñeneen ñoo xam dañ ko doon yëg di ko hmm. fil bu yàgg di hmm. approché di nekk ñuy liggéey hmm. donc bu ñu nee ba gis gis ni peut bokkatuñu gis-gis après n'empêche que ñi mën nañu évoluer ci li nekk ñi évoluer li nekk mais lépp dëgg la rek quoi hmm. cest mais nitu dëgg sa bos nu tudd non man awma bos man yaay nitu dëgg valeur wala ñoom non moro déggul man awma bos ah. man benn membre laa rek ci nitu dëgg valeur te nitu dëgg laa bokk man waaw léegi yokk ngeen ci valeur waaw cest à xam nga nit dëgg ba sax nit dëgg valeur la cest amul différence nit dëgg nit dëgg valeur la. Ah, am na différence kay Karim ñoo àndal depuis hmm. des années ngeen di ñaaw lu di xeex à un moment donné ñu gis ni yow. Hmm. am na yoo xam ne yaa ngi koy wala ñu la ciy tudd. Hmm. te dëppoowul ak euh, xeex bi nga xamante ni mouvement nitu dëgg mu koy xeex ba ñoom ñu génn la ci. yow nga ne génnoo ci ba créer sa mouvement nitu dëgg valeur. non non mais mouvement nitu dëgg valeur ñan ñoo fa nekk. cest à tey li ma la bëgg a expliquer ngeen ko nit dëgg valeur ay nit yoo xam ne ñoo nekkoon ci nit dëgg bay ñi ngi ci. ñi ngi ci ay nit yoo xamante ni yàgg nañ comme combat bi nekk ci ñi ngi ci mhm. ay ñeneen nit yoo xam ne ñu adhéré comme ni ñoon adhéré ci mouvement yi ba léegi ñu ngi adhéré ci nit ak valeur donc amul différence li ma gëm lenn la mooy mhm. principe xeex la xeex mhm. combat bi affaire bi jotewul dara ak vie privée jàmbur am naa droit am ñeenti jabar am naa droit takk sama jabar am naa droit sama jabar may loolu ku ku ciy dàqaar di nga dàq sénégalais ku ci donc loolu je pense que amul amul loo xam pour man dépassé na jotee. loolu tax ñu génne la. mais c' loolu moo ko waral. moom laa kan moo génne yow tey combat ah, ñoo Umar Sarr ñoo signé seen yow kan nga gis terrain yow kan <laughs> nga ñoo Umar Sarr ñoo def seen. <laughs> la si ah, voilà ainsi moom ay réew mais loolu noo ko sentiree le fait que peut être euh, sax bu fekkoon Karim moo def deful mais ñoom moment biñ la war a soutenir moment boobu lañ la lañ la lâché yow loolu naka nga ko gisee. dañu comprendre rek. xam naa ñu ngi comprendre loolu rek. dañoo hmm. noonu nga ko gisee. wala da nga jàpp dafa amoon ñeneen ñu nekk ci ginnaaw. nguur gi ainsi de suite. Hmm. parce que peut être yi ñu doon jël man euh, dafa fekk ma nekkoon bitim réew. Hmm. maa ngi demoon Tunisie sama soxna. après ñu jël décision sama ginnaaw après xam nga par téléphone laa yëgee par internet laa yëgee yenn affaire yi yenn donc xam nga pour man ñaa comprendre en fait gaaw na gaaw boo xam hmm. Karim Gueye ni muy xale yu jigéen ñi. fase di leen du dëgg. maam xaalis. Ah? am naa xaalis xanaa. nga pour man hmm. loolu. te nañ ko quoi xam nga li ma hmm. nga xam ko mooy man je musulman Mm-hmm. te man dama gëm ni man du ma lekkul xaalis bu lawul mm-hmm. bu woon xaalis moo tax a jóg kumba su ma ñëw fii quatre quatre laa fiy gaare mm-hmm. su ma bëggee teraanga du ci ay xale jigéen laa koy ut quoi nañu waxante dëgg xam nga li ñuy nekk mën nañoo may lu ne suñ jaayaan suñu ngor wala ñu nekk bi ñaata soxna nga am Karim <laughs> ñi privé la <laughs> Karim ñaata soxna la am benn ñaar soxna la am instant bi benn nga am ah d' accord léegi Karim ñu ñëwaat ci loo xamante ne occupé na actualité bi mooy da nga jékki ñëpp ràññee nañ en fait xeex bi nga xamante ne yaa ngi koy xeex ngay xeex ak ay lobby mhm. euh, yu sant ñi ngay laal euh, ñi leen ñemee laal bariwul ngay xeex ak ñoom di def ay live ci réseaux sociaux yi di dem ci média yi di leen clash directement ah, doo may dara le président Macky Sall doo may dara Macron doo may dara tubaab yi doo may dara homosexuel yeeg franc-maçon yeeg ñoom seen ah, ñu jékki ñu ah, feebar ñu bëri naan mais Karim xanaa mystiquement lañ ko jàpp euh, Karim jéem nañ ko corrompre ba sonn côté xaalis côté post ainsi de suite mu refusé gis nañ ci sa benn live yaa ngi wax ni sax euh, président Macky Sall yónnee na euh, Tunkara ñuy xool nu ñu la soudoyer ainsi de suite après nga clash ko noonu maanaam refuser euh, entre guillemets dañuy jàpp ne euh, jéem nañ la corrompre ci côté post wala xaalis comme ni ñu mm. koy defee ak ñeneen ñi nga bañ ñu jékki-jékki ñu nekk Abdou Karim Gueye dafa feebar dafa tawat ba sonn ñu bari di wax ne est-ce que jàppuñ la mystiquement lan nga ñuy wax par rapport ak feebar boobu nga xamante ni daloon na la. waaw ku ma xam nga déjà dafa am loo mm. xam ni. Mm. bon mënul ñàkk ci nit koo Euh, lu ko dal rek parce que dañ naan noo mhm. ku nekk dañ ci indi sa xalaat. parce que mhm. siw moo mel noonu quoi. Mhm. mais dafa am loo xam ni lu wér te wóor la mooy feebar yàlla moo koy teg jaamam. feebar la ñëw na kon feebar yëpp dal na ma maa ngi sant yàlla maa ngi wér bu baax maa ngi nii maa ngi sant wér na dem naa yàlla dimbali na ma sénégalais jàppale nañ ma ba ma faju yóbbu ma ma tukki faj ma le peuple sénégalais ñoo ma faj. maa ngi sant yàlla bu baax yàlla def ci loxoom ba maa ngi nii toog tey di continuer sama combat. comprendre nga léegi nag. Euh, li ci biir feebar bi xew-xew yi ci yi ci xew bari na. ah dañ am na nag lu ñu ci bëgg a xam. waaw moom laa la sax li ci xew bari li ci xew mooy. Mhm. bu dee wàllu li ñuy wax naan ay mystique la man loolu gëw ma ko. lu tax nga parce que gëw ma ko mystique waxuñu mystique kese de wax dañ maa wax nañ ko di mhm. waaw dañ ma poisonné waaw dañ maa jox ma lekk benn femme moo jox ma lekk ñi naan dañ maa sër yooyu yëpp ay wax la yoo xam man gëw mhm. ma ko man xam la laa gëm dama gëm ni feebar moo jot yàlla mooy tege feebar moo koy teggi tegoon na ma ko teggi na ko maanaam li ñuy wax Karim dañ ko empoisonné Karim dañ ko mystique. yooyu wax nañ ko lu nee dañ koy wax nu ñàkk. mais de Karim da ngay weddi loolu nii. pour pour la forme wala dafa nekk loo xam ne yow da ko gëm. au fond non mais gëm naka cest à man man gis na euh, comme maa yàgg nañ def émission quoi man lu ma gëmul du ma ko wax. Mm-hmm. man lu ma gëmul du ko wax. Mm. da nga gëm ni daal mbir mi suñ borom. yàlla moo ma ko tegoon tegi na ko maa ngi sant yàlla. gëmoo ni kenn moo la. mystique gëmuma gëmuma loolu. Mm. gëmoo ni état beeg <laughs> la. fexel ku ma loolu ay la rek. Mm. gars yi fexe ñu na ñu naan sax bi ñu la tëjee ci kaso bi peut euh, dafa dafa dafa tombé. parce que après da nga génn rek tawat. c'est que dafa tombé. bi ñuy def manifeste bi ñuy def manifestation pour affaire euh, Jeanne d'Arc bi. Mm-hmm. ci affaire famille yi voilé wu noonu élèves yi après ci lañ ma téye bi ñu ma téye mm-hmm. ma fanaan ci si si violon bi 3 3 4 jours ñu defeere ma bi ñu ma defeere jeudi jeudi lañ ma bàyyi ma génn. Mhm. bi ma génnee vendredi la feebar loolu la rek te jotewul dara. ak mhm. loolu ñëpp jàpp ne nag ci kaso bi peut-être wax ku ne mhm. la demee nii la demee mais loolu amul li am mooy. feebar la yàlla moo ko indi woon teggi na ko. mais tamit Karim yow nga feebar ah, euh, première dame. Hmm? Euh, ñu ne Karim foog ñu évacuer ko dem faji ko en en Europe ainsi de suite parce que instant bi médecin yi mënatuñ ci dara. Mhm. Euh, donc il fallait des millions yoo xamante ni moom lañ la war a yóbbee euh, ñu première dame tàllal la loxo. nga refusé sa soxna ne Karim du jël xaalisu première daam du jël xaalis bu bàyyeekoo ci Macky Sall ainsi de suite lan moo tax nga def loolu. waaw c'est-à-dire xam nga dafa dama. ñëpp naan mais kii dafay xaru. waaw waaw cest à ku nekk rek ak fi nga. Mm-hmm. fi fi sa engagement toll. Mm-hmm. ak ni ngay gisee combat bi. Mm-hmm. cest à man bi ma tëddee feebar bëri na ñoo xam ñëw nañ xam nga ñu bëri na ñu fa ñëw trop mais li ma bëggoon expliquer man mu leer mooy. que man benn Karim bu xeebu bi un citoyen lambda bu feebar nekk ci hôpital bi ma tëdd. salle bi ma tëdd. chambre bi ci topp am na benn nit bu fa tëdd gën maa feebar. ba ca toppaat am na benn ma gis ni ñoom ñoom ñëpp ñi ngi daw di ñëw. di ma mhm. proposer ay somme. Mhm. di proposer pour defal ma dara loo xamante ni man. Mhm. loolu alalu askan wi la. je sais comment fi ma waxee tey bi bi professeur Tunkara ñëwee di expliquer affaire euh, mën nañ ma jël d'urgence état président mën nañ ko wax vite fait ñu yóbbu ma. ak kii régler passeport diplomatique yooyu ñu naan ay kii kii ñëw ne madame Faye Sall service Sénégal nii kii ñëw ne kee kii ñëw ne kee man dama bëgg ñu xam ni ñoom. alal te membre boobu noonu dama bëgg ñu xool chambre bi topp ci sama chambre man am na mag bu fa tëdd dafa feebar nañ ko def ci moom beneen chambre bi si am na ko def ci moom man ma ñoom mm. am na ñoo feebar te man dama jàpp alal boobu noonu baaxul parce que ñoom fi ñu ko def defuñ ko fa. Mhm. ñi nga am ay problème ay machine chimio ñi nga am ay problème ay ordonnance ñi nga am ay problème ay euh, Sénégal sage-femme yi ñu mhm. policiers yi doyuñu seen i salaire doyu leen. Mhm. sage-femme yi ñu seen salaire doy leen. gendarme yi ñu seen salaire doyu leen enseignants yi ñu seen salaire doyu leen xale yi. école privée maa wax benn benn maître benn euh, sama waa ji ngay doo maa koy ziar bu baax baax mu expliqué ne mu ne école primaire yi école yi quoi école publique yi mm-hmm. robinet dañ ko dañ koy tëj Suez dañ koy tëj dañ koy tëj parce que amul ndox xale yi buñ soxlaa ndox duñ ko am pour raxasoo problème ci toilette yi mm-hmm. te loolu yëpp nga gis ak nga xool train de vie bi nguur bi di dund

faveur alors que peut-être koppar boobu waa privilège boobu nga bëggul woon traitement de faveur wala da nga doon wax peut-être man Abdou Karim Gueye euh, su ma jëlee xaalisu Marème Faye Sall mu mhm. faji ma ma ñëw euh, ma war a continuer sama combat dinaa am jafe-jafe pour sigi xoolaat sénégalais yi est-ce que du loolu tamit nga doon mooy sama maanaam ngay xalaat doon ñëwaat sur scène dootoo mën a clash Marème Faye Sall doot waaw xam nga laa doon xalaat mhm. sama diggante sama borom mhm. mu jiitu ci lépp mooy alal bi nga xamante ne alalu askan wi la mooy contribuable bi mooy impôt bi ñuy dagg nit yi di la ko dagg yow sa salaire bi ñu fay fii ci rajo bi di ko dagg keneen ak keneen di ko dagg ba koy dagg jaay ko di caaf bi yooyu yëpp bu ñu ko dajalee def ko trésor bi jël nañ ko jox leen ko ñoom ñoom ñu jël ko di ci dugal ci fi leen neex bu ma bu ma laal xaalis boobu noonu man li muy ñëw ci man na si kumba moo am xaalisam yéene ma ko dama Karim am maa la may lii. comme niñ ko defee. merci te man ñaanuma kenn waxuma kenn ñoom ñoom ñoo toog xool te noonu la demee te sénégalais yi war nañ ma ni ñoom ñun li ñuy xeex yegg na ci ñoom te gis nañ njëriñ bi. Mhm. te moo tax sénégalais yi ñoo faj maa ngi sant yàlla. mais nag dañoo waxoon mais Karim warul dem Allemagne lu tax mais comment se fait-il Karim yéen a ngi xas France yéen a mhm. ngi xas tubaab bi yéen ngi xas waa tugal mhm. lan moo tax ngay feebar mhm. euh, dem di faju ji Allemagne alors que autorités yi fii ku ci feebar faju ji Europe wala États-Unis yéen da ngeen leen di xas mais kon ñu ne kon euh, Karim mii waru woon bokk ci ñi ñuy dem di di leen évacuer en Europe di leen faj parce que kolewul ak sa combat ak say parole ak say acte ak li ngay wax chaque jour si réew mi waaw si réew mi nga bu ñuy bu ñuy kaas autorités yi ne dem dañoo dem Euh, tugal di faju ji bu ñu koy kaas di dal seen kaw dafa am lu tax ñuy dal seen kaw mooy am nañu ñoom train de vie am nañu lu ñu pasal pasal maa la ko wax léegi sage-femme mm-hmm. euh, mm-hmm. la moo tax ñuy kaas seen kaw ñoom mais ni nga bañee jël xale xaalis damay bàyyi ma yegale ni nga bañee jëloon xaalisu Marème Faye Sall mm-hmm. est-ce que waree woon bañee noonu ak fu mu doon mooy euh, faju la Mhm. faju faju la quoi xam nga faju mhm. dafa nekk loo xam leneen la mhm. mais dama ni man en tant que citoyen sénégalais man yoruma benn fonction man yoruma man géré ma benn ministère man laaluma xaalis contribuable man du ma ministre géré wu ma santé géré wu ma dara li ma mën def mooy ñi nga xam ñoo géré santé Sénégal ñu natt di leen ko jox pour ñu géré ko di géré réew mi ñoo bàyyi réew mi ba réew mi amul hôpital bu baax ñu koy xeex bis bu jot looloo tax ñuy xeex léegi nag bu fekkee ni man dama feebar léeg sénégalais yi nañ ko yóbbu mu faju ji bu Sénégal amoon hôpital bu mucc ayib kon kenn du ma yóbbu mooy dem fenn. mais Karim xaaral ma ñëw kumba. waaw léegi nag problème bi lan la. Hmm. mooy man su ma foofu nag lay nekkee xaru. xam nga yaa na xaalis ma ne fa daal ma ko bañoon jël xaru. foofu lay tey am man na loo xamante ni tey Allemagne ñoo ko mun faj Allemagne ñoo ko mun a faj ci man parce que Sénégal defuñ ko suñu autorité defuñ ko fi ministre yi defuñ ko fi président bi defu ko fi mm-hmm. ñoom loolu moo tax ñoom ñi dem ñun nag moo tax ñuy xeex ñoom pour suba man su ma feebaree yàlla yéex wala keneen feebar ñu mën a faj ci dëkk bi mais est-ce que Karim tamit bu fekkoon yow gëm nga dëgg li ngay wax dëggu nga si li ngay wax waroo refuser Allemagne nga ne sax yóbbu leen ma beneen réew si naari sax plutôt non non Coumba Coumba ah? parce que yow Karim li ngay yekk tubaab bi fii est-ce que war nga dem tubaab bi di la faj li nga yekk tubaab bi midi matin soir non déglul xam nga man man. est-ce que ça colle aussi. non su ma est-ce que acte bi nga def si Marème Faye Sall ñu bëri comprendre nañ ko. mais émission bi mais tamit bi. de émission nag doy daal déglu quoi xam nga ma de. <laughs> c'est-à-dire mhm. man. Mhm. li ma gëm mooy suñu autorité seen bopp di metti sax dañuy dem France seen doom France dañuy fajoo lépp France dañ koy defee. Mhm. léegi man ñun tey par exemple man tey benn baadoolo bu mel ni man. sama doom wala man sama bopp su ma bëggee faju te dara ñaata Sénégalais ñooy dee fii parce que amuñu moyens yu ñu fajoo. Mhm. parce que hôpitaux yi amul yoo xam ne amul mhm. mhm. man Abdou bu fekkee ni man nekkuma autorité. kenn joxuma kenn nattaluma comme ni ñuy nattee ci compte bu yàbb kenn teguma si condition état fayuma defuñu ma dara. ma nekk citoyen lambda boo xam damaa feebar réew mi ñoom politiciens yàq nañ ko ba nga xamante ñoom sax dañuy dem di fajoo foofu hmm. mais ma feebaree man war nañu mën yóbbu ma hmm. hmm. faj ci réew mi te suñu combat yi la léegi ma du raison quoi pour ñu ne pour ñu ne noonu léegi ci corridor toogal fii yow tamit nga dee comme ñëpp parce que da nga waa France duñu faj mais loolu du wax du raison ah bon amul ñi ñoom faju ji lañ sàcc di ci tukki di dem di réew mi alalu nit ñi bëgg faju moom lañ jël di ci sàcc jox la nga faju ju est xam nga alal jooju fu mu jógee exactement mais ay Sénégal mais mais attends defal nak xam naa daal ni Macky moom alal mu ko waaw caisse noire huit milliards xaar xaar kumba xaar xaaral hmm. xam naa ni man wër na ma wër ni man hmm. ministre de la ministre de la santé moom hmm. dina am oto dina am carburant dina am gendarme bu koy garder dina nekk si condition yoo xam ne ñun ñoo koy nag di ko fay xam naa ni chauffeur bi dawal Macky Sall ñun suñu contribuable moo koy fay mais loolu xam naa ko mais li leen war a fay. mais tamit Karim jox la oto. nangul naa la ko. mais nangul naa boo dem si àdduna bi ça se passe comme ça. ngi di ma tànc di mm. dëgg quoi war mm. mais mm. boo feebaree Europe ngay fajoo. xamal ni kon yow réew moom nga nekk du réew la beneen question rek ñu dem ci sujet d'actualité coronavirus. Mm-hmm. mooy comme par exemple euh, démb maa ngi seetaan euh, comment dirais-je euh, Guy Marius Sagna euh, bu France Frapp France dégage am ko koy xool si télé bi ne xanaa ñii duñ dem France Mhm. parce que nee nañ France dégage déjà France dégage rek ku leen gis danaan ah ñi ku leen may visa France normalement waruñ dem. Mhm. waruñ dem France wa waruñ soxla daraay France donc côté boobu laa lay waxee commence se fait-il ah, Karim. ni mu radicale la nga comprendre waaw France dégage c'est pas les Français qui c'est pas c'est-à-dire on parle pas du ay France ñun amuñu problème. Ah, mais imagine quoi tamit mais mais xaaral ma répondre xaaral ma répondre la. xaaral ma répondre la affaire bi du ay France. Ah, waaw c'est que

c'est que loolu du problème ça nit ñi il faut ñu comprendre ñun dépassé nañ affaire racisme yooyu ay France dégage du affaire raciste affaire yi doxal am seen Macky mu nekk seen benn wii wii nekk benn euh, préfet France Macron ko wax naka lay doxalee ñu jàpp ñu tënk ñu tatak ñu réew mi nekk ci loxo yoo xam ne réew tey pour nga dem Mbour. da ngay fay France. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay fay APA APA France moo ko moom. téléphone réseau bu baax pour bañ a def publicité xam nga fan la nekk France moo ko moom. France CFA mooy colonie franco-africaine. France moo ko moom. Mhm. ñoo ñu garanti suñu xaalis lépp lépp France lépp ñu dellu France loolu la ñuy wax France dégage. mais amuñu problème man war naa mën a am sama xaalis jël samay doom ñu dem France dëkk la comme dëkk yëpp samay doom visiter France xool loolu du dara c'est loolu jotewul dara ak système bi ñuy xeexal il faut gars yi comprendre loolu mais boo fi nekkee di xeex ay français mais loolu racisme la yàlla bëggul loolu. ñun amuñu problème ak ay français dañu am problème ak système tubaab bi tënk Afrique yeew ko takk ko jël seen armée française def ko fi armée française nekk fii di wàcc fii di fi dugal arme di fi dugal drogue di fi dugal lu nekk kenn du ko contrôler ah, ah. lu ne lañ <laughs> maa ko lu ne lañ fiy def drogue da ñu jël si waat waaw bi ñu waaye sama mhm. loo xam nga comment fi ma lay wax dégg ñun mhm. yi bàyyi loolu damay tout le temps kii moom warul dem kii moom warul wax ak tubaab warul wax tubaab yaa ngi fi baax nekk bañkat di dimbali nit ñi. Mhm. di xeexal seen réew. ah mais yow Karim Karim Karim est-ce que loolu li ngay wax fii est-ce que ça colle parce que yow tubaab bi bon dégg ngay wax. tubaab bi yow sa kii ñu ngi fi dañ lay seetaan tout le temps dañ lay suivre. non xam nañ da ngay clash tubaab bi doo leen may dara. tubaab bi ñoo fi indi yu bon ñoo fi indi góor jigéen. ñoo fi indi lii ñoo fi indi lii. mais man dama la tubaab yaa ngi fi baax am na nit ñu ñun ñoo xam ne ñu ngi fay africain. Ah, ñooñu mais tax si laay kumba kumba hmm. kumba su ma lay wax dama la système lañ lay waxal. Hmm. tey bu ñu demee UNESCO di def ay choix di dugal di xool naka la dugalee jàngale bi ci biir Afrique teg seen i programme ànd ak ay banque mondiale nouvel ordre euh, nouvel ordre mondial ñu teg seen i programme ñëw xool naka la ñuy def ay Nations Unies di ñëw di xool naka la def ba tënk àdduna bi ba indi ay Rihanna mu ñëw fii ne dañuy xool enseigner ni ñuy enseigner système enseignement bi ñuy jàngalee suñuy doom ay ay sexuelle ay yooyu la ñuy xeex te loolu jotewul ak tubaab mais tubaab yaa c'est que ay tubaab ku weexal non non non affaire bi yow da gis ni ñun ñu ñun ñee gën a bon fii ñu am nañu si bëri bëri ñoo xam ne baaxuñu fa góor jigéen yaa ngi fees fi del ay ñoo xam dañuy def ay am benn waaye bu tudd Jean Karim Diouf mais kooku dafay dox ci lépp luy dooleel góor jigéen te sénégalais la nit ku ñuul kukku la def ay association di dox di def manifestation fu nekk ci àdduna bi di ñëw ci réew mi di fexe ne ñu dugalee góor jigéen ci dëkk bi donc kon loolu du ay question de race question de système la ay nit la yu toog teg programme donc comprendre c'est le système. merci loolu kese la du leneen. <laughs> voilà euh, Karim Gueye gis nga euh, ñu ñëw ci actualité bi Sénégal ak coronavirus ban jàngat nga ci am gis nga instant bi coronavirus entre guillemets ñeneen ñaan ci ay euh, kii la jógee je ne sais pas chinois ainsi ko sànni ñi naan punition divine la en tout cas on compte des centaines de morts par jour ci dëkk yu bëree bëri ci àdduna bi euh, des milliers de morts Sénégal am na trois décès am na quelques cas ainsi de suite naka nga gis euh, Sénégal ak xeex bi nga xamante ne teg nañ ko pour xeex coronavirus ban jàng nga ci am waaw jàng bi jiitu d'abord mm-hmm. mooy euh, damay njëkk wax gars yi dañuy raxasu mm-hmm. nañu comme ni ñu koy waxee raxasu leen sol leen masque et tout mm-hmm. gëm nga feebar bi yow boo ko si ñu naan gëmuñ ko non cest gëm naa ko ni ko fi ñu teg feebar bi man teguma ko fa. Mhm. damay waxante dëgg rek quoi parce que dama ni feebar bi bu doon mbër la ci làmb daa am bayre rek waaye mbëri ko dàq bëri ñu ngi fi. Mhm. Sénégal li sibiru di rey par an coronavirus du ko fi rey mukk ci àdduna. Mhm. Sénégal li cancer di rey par an euh, coronavirus du ko fi rey mukk. insuffisance rénale. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay jigéen di wasin di am problème mu coton hémorragie di leen rey

yal na yàlla yërëm nag. Mhm. raxasu. Mhm. takk masque dañ ko war a def na ñëpp raxasu. di takk masque nañ def nañ def lépp lu prévention lu mu laaj rek nañ ko def. Mhm. mais dama ni fi ñu jël affaire bi teg ko fa ba jàpp yëf yi di ko di def ay di dugal ay loi d'habilitation. àdduna bi feebar bi li mu toj ci àdduna bi li mu rey ci ay nit ci àdduna bi ci ay Amérique ak ay ay Italie est-ce que dégg ngeen seen ñu dugg seen assemblée yi naan dañuy laal ay loi Hmm. nee nañ Macky mooy bu mooy bu mi waaw c'est moom laa expliqué loi d'habilitation di cest à mel ni kuy njëkkante ci affaire bi di hmm. jéem gën a noot askan wi quoi foofu laay waxee hmm. yamuñ ci loolu ñëpp gis ni ñuy doxalee ci affaire affaire u naan léegi dañuy def ay aide alimentaire defar ay def ay couvre-feu à gën a tënk Sénégal yi di leen gën a noot loolu musiba naaru laay la donc gis nga ne dañu bëgg a utiliser coronavirus gën a noot askan wi gën a jël argent du contribuable aakimoo ko kumba lu ñëw noonu lañ siy def waaw lu ñëw noonu lañ si malgré souffrance bu euh, euh, sénégalais di dund actuellement dañ ciy profité di gën a mm-hmm. noot sénégalais yi mm-hmm. di leen gën a toroxal mm-hmm. chaque jour baadoole yi di gën a sonn ñoom ñuy def ay partage du gâteau di def ay gré à ñëpp gis nañ ko yàgg du tey quoi yàgg na du tey loolu moom mooy politique gu sénégalais mooy politique gu ñun suñu homme doxalee quoi mais tey coronavirus bi ñuy expliqué nii cool bari ku nekk di wax nii mais maa ngi koy wax bari ki démb ma ni mais vraiment tamit jot na ko comprendre nga Kumba xam nga. Hmm. cinq vendredi ni ñu àjjuma. ah doy na war de. maa ngi koy wax keroog ma ne lii c'est eh, trop. Eh, ko ko laaj. ainsi de suite trop cinq vendredi julli ñu àjjuma fan lañ ko teg hmm. ñoom hmm. ñoom ñoom ah ministère yi ñu ngi liggéey ñu ngi def disposition yi mat yëpp def seen i masque laal seen i gel antiseptique ministère yaa ngi liggéey. Macky Sall avril dafa woo armée bi benn nombre de personnes. ñu défilé biir assemblée biir palais ñu defee le biir pare lu tax parce que dañuy téye mémoire xaw ma lan xam nu ñu ko expliqué noonu mais ni ñoom seen mbiru àdduna yooyu ñu ngi def toutes les dispositions pour mën ko def waxtuma la jaamu yàlla nga xamante ni depuis mille quatre cent ans yonent bi ñuy naka la ñuy léegi problème bi mooy ñoom fan lañ teg loolu fan lañ teg ñu jàkka yi julli wuñ ci jàkka yi mhm. waay ñu jàpp jàkk yëpp tëj te ñi ñaa ngi dem ci marché yi yi ñu jël tey ku nodd lu tax policiers yooyu ñaari policiers du ñu taxaw ñu jël ay masque defar ko woo jàkka ji joxe masque ku ne ñu jox nga raxasu ñu taxaw julli waxtu juróom mm-hmm. vendredi ñu dem julli ji ah, imaam eh, yi nga jamono ñoom chaque fois mm-hmm. lu état bëgg rek ànd nañ ci quoi jàpp ay alxuraan di ko wëlbati di business di ko lixaati di xool nu leen arrangé mm-hmm. fii lu fi mës am même guerre yonente nekk ci guerre benn parti bi di julli benn parti bi taxaw di leen garder ñoom bu ñu paree ñu julli julli du luy dakk julli lu ñu war a def saa su ne la waruñu tëj mm. mm. ñu yàlla mm. jàkka yi ngay dem ñaan yàlla mu dindi ko mm-hmm. bu ñu ko tëjee mm-hmm. jàkka yi balaa weeru koor bi àjjuma ñu delluwaat di julli parce que loolu lii du continuer parce que buñ ñu yàpp buñ ñu yàpp quoi nañ ñu respecté ñoom ñi ngi dem di jëndi mburu ñi ngi dem di jëndi seen i jën di dem di jëndi di ndugg seen i ndugg dem ci boutique yi di jënd ñi ngi def si rajo baa ngi nii yéen a ngi nii di liggéey mm. waaw léegi jaamu yàlla lu tax ñu wax ko dagg c'est que loolu laa xamul Sénégal dafa yegg ci kaa ñu tëjee nekk mën nga nekk sa kër julli ma ne julli mbooloo dafa am dafa mm. sa kër te kaaw Sénégal yeggul fu ñuy tëjee ay jàkkaaki jumaa nañ ma xamante dëgg yeneen dëkk yu gën a graaw sax ñoo xamante ni ay mille personnes ñoo fa dee ñi ngi tëj jumaa ay jàkka di julli mais nañ dem julli mais Karim dañuy bañ lay am si yeneen dëkk am fii ñu jël ay précaution précaution yi mooy lan mhm. xam nga jamono yonante bi ak jamono ji bokkul jamono yonante boobu science peut-être yegguloon ci ay raxasoog ay gel antiseptique yenn feebar bi ñu xam naka lañ koy kii ak yooyu mhm. mais jamono biñ toll nii ñoom mën nañ jël ay disposition defar ay masque taxaw ci buntu jàkka yi def ay gel antiseptique nit ñi taxaw julli mënul nekk ñi ngi koy demal demal dugg ci waxuma la chaque vendredi prière yëpp laa la wax ak vendredi. Mm. demal demal dugg ci euh, transport. ma ne au sax chaque vendredi. mais dañu waxtu yëpp vendredi et tout weeru koor baa ngi ñëw ñun mënu mën nañ ko si def pour ñu tujji jàkka yi te bañuñu si dara. parce que trop c'est trop euh, euh, kii Karim sénégalais yi sonn nañ de déjà sonnoon nañ crise bi ñëw doggali leen. Mm-hmm. damay wax nekk na société boo xamante ni pratiquement ñëpp dañuy xëy góorgóorlu ji ñu bare bi couvre bi amee ak mesure yi ñu jël pratiquement ñëpp seen business dafa yàqu souffrir ah ñu bëri toog seen biir kër di xaar état bi aide leen fayal leen ndox wala courant wala location ainsi de suite dégg nga Macky Sall li mu wax tranche bi muy fay ça ne suffit même pas euh, aide alimentaire bi tamit gis nga coow li mu jur déjà mu nekk milliards yu bari yoo xam ne ñu ngi naan dugal nañ ko ci rien que pour transport euh, aide alimentaire yooyu aide alimentaire encore euh, sénégalais yi yi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum ceeb jàpp ni sax ñoom dañ leen a beddi dem jox ko ab ba coow li actuellement sax mu occupé actualité bi ba ñu fàtte sax coronavirus bi en tant que tel naka nga jàngatee mbir moom ba sénégalais léegi lu ñuy waxtaanee seen buntu kër moom mooy ah ñun de aide bi xam naa dañ koy dégg wala di ko gis ci télé bi rek waaye duñ ci jot parce que euh, ñañ ko war a jox duñ leen ko jox. PSE dañu waxoon ni waaw en 2019 dañu am autosuffisance en riz. Mm-hmm. yaa ngi koy fàttaliku. Mm-hmm. maanaam. Mm-hmm. mbay mi plan Sénégal émergence autosuffisance en riz. waxoon quoi. ñu ngi deux mille deux mille vingt. Mm-hmm. ñu dem di jéggaani ceeb. Mm-hmm. di ci tiitaroo te 2017 la ñu waxoon. ñu ngi ñu ngi 2020 2020. ma ne 2017 la ñu waxoon. après dañ ko poussé woon ba 2019. voilà exactement am na lu ñuy bëgg wax rek di poussé comme train bi terre bi noonu. Mm-hmm. c'est-à-dire xoolal <laughs> maanaam xam euh, tey. ñu ngi nekk di xëccoo ay ceeb ñuy jéggaani bitim réew. Moro Sénégal ñetti dex la am. réew yi ñuy jaay ceeb bi amuñu ñetti dex. pour wàllu incompétence su suñu njiit yi. tey instant yii nii sénégalais yi xoolatuñ sax. ñoom li ñu Macky Sall mën a apporter en tant que gouvernant li nga xam ne war nañ ko mën teg seen programme yi ñu tegoon hmm. non ñu ngi xool naka la def fàtte nañ sax ni dafa am programme bu ñu tegoon pour dundal Sénégalais yi pour ci wàllu ñu am autosuffisance ci dund ci ses terres mu yem ci suñu réew léegi xoolal milliards yi ñuy këpp ci wàllu ceeb hmm. xajoon na fan xajoon na ci loo bare bare bare xam lii lu ko waral hmm. c'est li nga war def boo ko defulee da lay fekk da Mhm. tey Sénégal am na lu ñu doon defee. Mhm. heure bi ñu toll nii. dañ mhm. nekk ci leneen. même bu fekkee mbas bi dafa ñëw wala coronavirus bi fi mu toll nii. am na yu bëri yoo xam ne nañ mi nag xam ngeen ko. ñun ñëpp xam nañ ko. Macky Sall moom Sénégal du amati doom bu mel ni Macky Sall ci àdduna. non pas pas doom du amati. président bu yéesee ni Macky Sall. ah bon loolu amul sikk. loolu amul sikk Karim sonal nga Macky Sall de. ñun ñu bëgg xam la. moo tax suñu combat moo tax combat yi wax souvent ma ne ñun suñu combat mooy. Sénégal ba ñu Ah parce que non parce que no Macky Sall gàcce la non non non dama la wax dëgg Macky Sall gàcce la. Mhm. parce que gàcce mënul weesu yow nga juddu après indépendance Macky musul tukki Sénégal la jànge primaire ba yaa ma gën a xam. Mhm. Macky Sall tas yaakaaru Sénégalais yi ñëw gën a nekk tubaab sax Abdoulaye Wade mi nga xamante ni moom moo géré woon colo colo fekk na fi tubaab bi colonisation. Mhm. est-ce que dégg nga fu ma lay waxee. la ñu xeexoon ca jamonoy Abdoulaye Wade. rayante maanaam yaakaar gi ñu amoon ci moom. parce qu'il est né après les indépendances. non cest dafa dafa toroxal Macky Sall dafa toroxal yëpp nag. daf leen toroxal daf leen toroxal ci lépp laa lay wax ci lépp tëj lépp te ku wax wax ma ci nguur Macky ban gor la Macky tëjul ci kaso bi lépp lu muy def rek mi ngi xool naka lay def ba mën a pëtëxal ñi nga xam ne ñoo fi taxaw pour dimbali Sénégal wala ko xam da ko yàqal nguuram pour mu nekk ci jàmm même bi muy woo opposition beeg société civile beeg yooyu ci palais bi sax ku mu taqal la bëggoon comme ça askan wi ne kii de Sénégal ñoru ko ku bañoon rek mu ne ñu ne waa Sénégal ñoru mhm. xamante ni politique machiavélique machiavélique mhm. bi lay wax quoi mhm. moom loolu rek lay lijjantiwul luy doxal Sénégal te nii la koy jàppee yow nga def ñaari mandat sa beneen mandat bi mhm. dara defoo ko fi beneen mandat bi ngay séddale ay ceeb yoo xam da nga ko jéggaani di ko mhm. tiitaroo sol ay costume di xuu xuugar xuugaree di photo di di <laughs> xoolal gàcce la lii defet la defetu Sénégal la mhm. te réew mi dafa nekk réew boo xam ne bu dee quinze millions dix millions yi ay baadoolo lañ baadoolo mooy ku dencul huit millions yi dañoo sonn dañoo ndóol turam moo nekk ci kaw. jabar ji turam moo ci bi ñuy mm-hmm. woote ci kër gi war nañ di numéro yoo xam ni ceeb ñëpp numéro yi ci biir kër gi la téléphone. ci biir kër gi maanaam tonn ceeb day wàcc foofu noonu. Mm-hmm. te noonu lañ koy defee. te yemuñ ci loolu tamit ñi ngi jël ay carte d'identité di ko di laaj ceeb bi di joxe pour ceeb pour commencer nag commencer nag daal jël seen parrainage. Mm-hmm. sàcc wor labaj bu ñu ñi sonné nga leen di kii fekk néew bu nelaw nga wu leen te bëri na ci luñ ciy wax ci ay ci coronavirus naan lii la demee yu ci bëri du dëgg. Hmm. yu ci bëri amul c'est faux kaaw Kër Massar bi ñu ne ay cas communautaire ban ban ban ban. boo déggatee ban ban na fii wala. aggraver situation alors que demeewul noonu ban dañuy profiter maire Kër Massar dafa bëgg yàgg bëggal tëbal marché Kër Massar bi pousse ko déplacer ko pour ñu jóge ci rond point bi nit ñi bañ. Hmm. mu tëj marché bi di ci profiter. Bamba Fall nga ne dafa yàgg bëgg yëkkati Medina mun koo yëkkati mu profité ci di sóob si amul lu dégg baax noonu la ñuy def dañuy jéem a profité dañuy am ay seen i programme ba pare am lu ñëw ñu sërxal ko ci loolu mooy politique bu Sénégal toppatoo ñu Sénégalais yi faale wuñu leen bu ñu la doon faale démb démb bien avant li ñuy njëkk de réew santé moo ko yor éducation ak dund mbay te taxawuñ ci benn yoon amul lenn luñ si def liñ si jéem def ku sug tuut ñëpp gis nañ waxuñu ne amul de Mhm. mais réew moo xamante ni nombre policiers yi doy ñu seen i salaire doyu leen mhm. sage yi doy ñu seen i salaire doyu leen mhm. gendarme yi doy ñu seen i salaire leen enseignants yi doy ñu seen i salaire leen xam lu ñu def fi li waaj wax li ma li ma sama système bi di wax nii corona business corona business comme ni ñu koy waxee mais Abdou Karim Gueye waxtu bi bareetul mhm. foog ñu laajaar la deux ou trois questions euh, couvre-feu bi démb gis nga sortie bu président Macky Sall euh, couvre fa à partir de vingt heures la jëm euh, six heures du matin mhm. nee na ak cas yi ni muy yokkee ni ainsi de suite boo moytu dina def couvre-feu bi dix huit heures mu nekk loo xam nag bi mu ko waxee sénégalais yu bari ànduñ ci ci réseau sociaux yi ñu ngi rebelle wu couvre fa dix huit heures sept heures ànd nga ci wala àndoo ci àndul si dara Mhm. ci lu Macky Sall même couvre ñu def nii sa àndoo ci ànduma Macky dara parce que defu ko pour Sénégal ah daf ko def non yow bi muy wax ak Sénégalais yi France 24 la doon waxee ñaata presse ñante ñoo fi nekk buy wax ak Sénégalais si tubaab bi lay waxal tubaab bi lay waxal tubaab bi ñoo ñu koy wax c'est-à-dire dama la bëgg wax ni man ñun dañoo amul président amuñu dirigeant amuñu leader léegi man li may wax. mais léegi nag Karim doo jéem a xaw a baña a radical tuuti mais euh, euh, en tant que feebar bi d' accord nga ci couvre feu bi d' ci couvre feu bi côté feebar bi lay waxee. pas en tant que côté décision bu président Macky Sall dama la euh, balaa ñuy def couvre feu. Mhm. waxuma la bu 18h bi muy wax ni de. bu 20 mhm. bi. Mhm. waroon na fexe ba sénégalais bu nekk. ah balaa ñu dugg ci ay confinement yi yëpp ñu fexe sénégalais bu nekk.

teg seen i oto bi tante nekk seen jàmm sëriñ si même chose ñu jàpp baadoola yi ne rek di leen dóor di leen wax tëdd di leen toog leen da ngeen di feebar mais loolu fan lañ ko teg nañu waxante dëgg quoi man foofu rek laay waxee man waxuma ni feebar bi amul waxuma ni waruñu jël ay mesures pour moytu. kon yow ñuy wax ay confinement jàpp nga ni ñoom dañu nekk si beneen réew bu dul Sénégal mais ñuy wax confinement confinement. mais est-ce que xam nañ réalité réew. réew mais réew mi tey dañu hmm. wax yow mais Koumba xam nga ko. wala dañu nekk benn Dakar benn quartier résidentiel rek naan confinement confinement. mais yowaate rek kese la. Hmm. ñun Sénégalais dañoo sonn. amuñu lu ñu lekk réew mi dañoo sonn ñu jànguñu lekkuñu naanuñu di fanaan ci ay ndox ay kër yu taa ay daaw nga xam ne ay nawetu ñetti at moo fa nekk mm. ay nit yoo xamante ni seen jàngi école seen doom yi jàngi wuñu c'est-à-dire foofu laa lay waxee quoi sànq maa lay expliqué ay école dañ ko tëj mm. ay jafe-jafe faju yooyu yëpp nekk fi yow ngay wax waxu confinement balaa nga wax confinement lijjantil loolu ba pare couvre Macky Sall da ko wax par exemple lundi mardi ñu <laughs> wala dans quatre jours dañuy def couvre-feu. mais waxoo tey suba sa. ñu commencé dóor nit ñi di toroxal di dóor ay mag ay nit di dox c'est-à-dire chaque fois baadoola yi ñooy perte quoi ñoo ciy sonn chaque fois ñun la bëgg rey rek quoi loolu mooy problème bi. Mm. te lépp dara wala ko lu dul xoola image bi ñuy rafetal ci diggante ma tubaab bi. Mm. vaccin yi fii ci Afrique. Mm-hmm. foog nga wax ci. Mm-hmm. coow li bari BCG euh, plateau LCI ainsi de suite. Mm-hmm. dafa mel ni ba léegi bàyyee guñu. Euh, vaccin a euh, vaccin yi fii Afrique. non ko ut fuñ ko jaarale. non Afrique moom xam nga dafa mës a nekk ko bàyyi. Mm. Afrique moom ndeysaan. Mm. lu ñu ñëw rek këppuñu ko. Mm-hmm. moo tax suñu xeex bi moom laa la ne la système bi loolu la ñuy xeex sànq mm. loolu laa doon expliqué ne la ñun système la xeex léegi nag man damay sant parce que gis naa africain yi ñu ngi commencé yeewu. yeewu léegi afrique africain yi léegi dañuy yeewu ma sœur gis ni léegi Euh, ñëpp ay jug wax ñun soxla wu ñu ay vaccin ba autorité yi ci tubaab jot ko. Mhm. ba ñoom ñëpp ñu jot ko ba reculer donc combat bi comme ñun suñu jiite. ay yaatu tamit duñ utee feneen fuñ ko yi réfléchir rek taxaw ñu ko jaarale si chloroquine. am na ñu ko jaarale si chloroquine bi. waaw mënuñu ko jaarale chloroquine ñoom ñoo ñu ko gën a soxla. Mhm. ay tonni tonni mooy ñoom ñoom tubaab ñu ngi jeex yaa ngi jeex mais yow ban jàngat nga gis si loolu le fait actuellement Euh, coronavirus ñi mu gën a sonal mooy les puissances occidentales États-Unis sonn nañ loof nañ itali loof na France Espagne ainsi de suite jaar na Chine ban jàngal nga ci am. par rapport à ça non jàngal ma ci am c'est mooy yàlla moo am jamono bu nekk. Mm-hmm. day wàcce benn balaa ñun nous sommes des musulmans. Mm-hmm. balaa bi nag da ci dóor ñii mu nekk natt ci ñoom ñii mu nekk mbugal ci ñoom léegi nag quant à bien avant ñuy ñuy ñuy ñuy feebar bi di fa dugg noonu. dañ fa wane dañuy def benn gay pride bu garaaw. benn feetu góor jigéen. Mhm. ñu jël fu mel ne stade Demba Diop. ay góor ak góor kese nekk fa def taati neen di fóonanteeg raayante mettul weer. ci la mhm. feebar bi dugg foofu. Mhm. boo gisee ñuy xeex naan di xeex si réew mi naan non bëgguñu tubaab yi yàq fii bëgguñu dañuy bañ euh, éducation sexuelle dañuy bañ nangam dañuy bañ nangam bëgguñu kii nga gis ñuy teeru ay ay diaspora ñu jug di xeex nga gis ñuy teeru ay góor jigéen ñuy xeex. di fexe ñu naan dañuy bëgg assemblée nationale dañu ko bëgg ñàkk. dañu bëgg lii loo xam lu tax. bañ yàlla mere ñu yàlla su meree buy dóor ñi jaax ak ñi bon ñëpp lay dóor lii nag moo tax adduna bi dañ demoon ba mujj gi tubaab bi dañoo teg programme boo xamante pour mm. def promotion ba génnee budget pour promotionner homosexualité pour ñu mën ko tas ci bépp assemblée yëpp nangu ko pour mu nekk ci nouvel ordre mondial bi adduna bi dox ni góor a góor dañoo war a sëy kon nouvel ordre mondial bi ñuy wax nii mm. nag expression boobu affaire franc-maçon kese mm-hmm. ko noonu mm-hmm. yooyu ko mujj def ci corona bi mm-hmm. loolu moo tax ñuy xeex ñun loolu rek moo tax ñuy xeex pour sàmm suñu dëkk yi sàmm suñu diggante ak suñu borom sàmm suñu valeurs yi sàmm suñu diine yi ndax yàlla mën ñoo yërëm mm. loolu kese moo kon gis nga ni lii yëpp c'est maçonnique kay nouvel ordre mondial bi yàlla moo tax même su fekkee affaire bi punition la hmm? comme ni nga ko waxee corona covid 19 Euh, mbir mi ñëw mais gis nañ ni ci seeni discours ci discours expert de suite tout temps expression bi mi ngi ñëw nouvel ordre mondial ba ñu bari di laaj mais nouvel ordre mondial. nouvel ordre mondial moom ñëpp xam nañ ko. a am ak coronavirus. mais man aw si lu mu wóor ci loolu dégg naa ñuy wax nag ay ñoo ko sànni sànni wuñ ko mais ak lu mën a am lu mën a am lu mën a am. mooy même bu ñu ko sànni yàlla moo ko na mu jaar ñoom ñu sànni ko mais mi ngi leen ciy duma bu baax a baax a baax te mi ngi xam ne jaamuñu yàlla ñi nga xam ne ñoon fooyoo yàlla mm-hmm. te pour man jot na ñu delluwaat ci yàlla parce que lii daf ñu war a delloo ci yàlla mm-hmm. ak ci religion boo mën nekk nag am na ñu naan Afrique ci ci ci situation bi peut-être la mën a euh, profito pour pour nekk carrément pour imposer wu parce que gis na nañu ñuñ doon wax les puissances occidentales essant dañu jaaxle alors que Afrique am na bépp ressource ci lii la mën a profito pour taxaw carrément imposer boppam lan nga ciy wax par rapport ak thèse Afrique du nekk mukk mm-hmm. ñoom Macky Sall yi ñu ngi ñuy jiite ay ñoom président Côte d'Ivoire bi Ouattara. Mhm. ay ñoom le malien la nu mu tudd euh, le guinéen la nu mu tudd. Mhm. Euh, Condé Condé. Mhm. fekk ñu ñuy jiite Afrique du nekk mu parce que leader daf ci am solo. il faut d'abord mu am ñoo xam ne dañu am amour Afrique bëgg ko. toog ci pouvoir bi sinon dara du am. il faut mu am ay nit yu comprendre quoi gëm Sénégal gëm seen gëm Afrique. Mm. pare pour xeexal maanaam lii du ñu occasion. bi pour nekk ki koy saisir mooy autorités yi ñoo ko war a saisir pour askan wi jot askan lu ñu mën saisir. yaa ngi gis si démb benn si déclaration euh, euh, journaliste français bi mi ngi naan ko le président dañ la jox aide. Mhm. aide maanaam dañ la jox ndimbal. ci corona bi euh, ndimbal boobu ñu ngi ciy tudd sa beau frère ainsi de suite est-ce que kon yow mën nga am crédibilité wala est-ce que mën nañ la wóolu maanaam est-ce que maanaam koppar yi ñu la jox. est-ce que mën na am traçabilité est-ce que mën nañ euh, jàpp ni ña ñu war a jox ndimbal bi les plus pauvres est-ce que danañ ci jot mais yaa ngi dégg euh, sax dafa daal di contourner question boobu lan ngay wax pour yow la moo taxoon Macky doon c'est tout mhm. tout ça a été programmé mhm. la moo tax Macky Sall doon fexe bu njëkkante ci assemblée pour li mhm. pour yow la moo taxoon pour mën a def lu ko neex li yëpp ça a programmé te pareegul te pareeguñu xaalis force covid 19 bi waxtu bi jeex na du ay yii ñuy wax nii gis nga tey bu tawee bu ñu jël Mansour Faye ñu ne rakk magu mën a fay sàll moo taxaw te ñu gis nañ fi Karim Wade gis fi gis fi gis fi yeneen ak yeneen xeex ko fi ba ñu ay nit dee fi cest mooy ñàkk jom ak ñàkk respecté askanu Sénégal c'est très léegi loolu nag li koy mën dindi mooy Sénégalais ñoo war a jóg jël Sénégal téye ko ak seeni loxo ci fulla ak fayda bu ñu ko deful Sénégal du dem parce que ñii ñu fi nekkal ñoom li ñu bëgg mooy gouverner toog te pareeguñ de xaaral ba ci kanam tuuti di nga gis yeneen. Mhm. Karim ñu bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi ak internautes yi. waaw maa ngi ziar maa ngi ziar maa ngi ziar sama mbokk internautes yi di bi mhm. kese la c'est très simple. ñi mhm. su dëgg valeur mi ngi liggéey. ñu ngi teg suñu programme di liggéey. di wax ni man combat bi mooy jàkka yi ak jumaa yi nañ ko tijji balaa weeru koor bi. te lépp lu ñu mën dinañ ko def te bañ ñu te na ko autorité yi dégg te xam ko. te xam ne lu ngeen di def Karim yéen ku wax ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a yegg. ah instant yi takk der yi moom ñun faale ay takk der su ma la waxee war nga ko man takk der faale leen. ndax gendarme yeeg militaire yeeg. policier ñooñu gën a sonn ñoom. waaw añ ñu lekk ñu ñoom ñoo la gën a sonn ñoom dama ni ñoom tamit dañuy soxla jàkka yi ñoom it hmm. ma ne ñun suñu combat loolu la actuellement balaa weeru koor bi nañ tijji jàkka yi ak jumaa yi leeral sénégalais yi mbuxum yi Macky di mbuxum ak nax naxaate yi ñuy naxe di ko profité ci covid bi seen corona business bek yi yi nekk ñun àndu ñook ñoom wax ni bokk ñook ñi nga xam ne ñu ngi buruxloo di njëkkante dem ci palais bi di njëkkante di nuyoo te kottante di ku di ut loo am si sa directu sénégalais yi am na ñu fi nekk ñoo xam dañoo diñ heures euh, di remercier Léon Paul di ci technique bi réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 euh, heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi ngeen mën a rattrapé wu ci suñu portail internet www point rewmi point com www point rewmi point com wala ci suñu chaîne euh, YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah